kon ñaari euh, ñaari laaj yooyu jeex na ñetteelu laaj bi moo di lu jëm ci ñaari rakka yu xam ne ñu ngi koy célébrer ak mu nekk ko def mu di ñaari rakka yu sëñ Touba julli woon foofu sëñ Touba fi mu julli ci réew mi bare na béréb yu ju yu bari daañu wax ne sëñ Touba julli woon na fi benn ñu mandargaal ko kon nag ñàkk ko mandargaal li ci li ñu xam yëpp mandargaal nañ ko waaye lan moo tax nag ñaar rakka yooyu moom ñu di ko célébrer def ci loo xam ne defuñu ko ci ci des dafa am mërza li ñuy wax mërza maanaam jëf béréb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu wi ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi li tax kenn mun leen jot ci jëf dañu jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu especial bu dootul répété mooy tànk bi fi yonent bi nekkee sallallahu alayhi ñoom ñu taxawal l'islam fekk l'islam ñëw fi woon dara ñëw fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënu jëf ba jot leen ci àdduna si ñuy ñëwaat naka noonu béréb itam sëñ bi julli yi mu julli ci yenn ti béréb yoo xam ne كان مصفى جولي تي نين كو نيتلت خاينا مانا ام بابا سعد تاخو يالا مانا دوغال كان بوت فا جولي دا لا جوخ جولي يتم فالور كون موم موي ظرف زمان موي ظرف مكان بوتي نيك دا لا جوخ جيف فالور ولا مو واني فالورم بو فكنت ني جولي تي بوبام داي لي گنا ماغ تي خيتي جامو يالا ني نيكو ني واخني الصلاه اعظم العبادات جولي moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mu nekk dana ko jaamu boroomam mu dellu seet sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci julli muy wax naan sopploo nañu ci seen àdduna ji ñetti yëf seen àdduna ji la wax waxul ci àdduna yéefar yi wala ci àdduna yi nit ñi daj àdduna rek amatu naas seen àdduna ji yéen saxaaba yi ba tey kon àdduna ji sellal mu ni soppali si ñett benn bi ak tayib bi mooy ot koloñ wala parfum li koloñ bu ngeen xóotalee seen xalaat ngeen gis na li koloñ lu ñu tànn ci biir tànnit la tànn la ca gën a neex xet liggéeyee ko noo xam ne dafay tax muy xet bu neex xet bu neex bokk ci teraanga bokk ci lu ñu tànn tànnaat ko comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko tànne ci biir ay tànniif muy sopp lu ñu tànn ci biir ay tànniif loo xam ni dañ koo extraire maanaam dañ koo ni ma ko waxee rek dañ koo tànne ci biir tànniif hmm. loo xam ne lii ci àdduna bi la ko nit ciy jëfe waaye sallallahu alayhi wa am ci yeneen i gisiin yoo xam ne nit amuñu ko ba tax mu sopp kon amul mu sopp lenn loo xam ne adduna yi kese rek la waaye day jàngale ñaareel bi laa la femme euh, soxna loolu itam boo seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wa indi meññet mu bees mu ñu soog a watte ci garab mu teg ko ci jëxam wala ci kanamam naan maanaam luy soog a jóge ci suñu borom ñu ko jëf xam nañ ne lépp lu am suñu borom ko jëf waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñi def ci dugg meññat moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbatee it di ko arrosé maanaam di ko suuxat itam foofa la cay yem suñu borom a koy màggal ba tóor tóoral ko ba génne meññet mi nga xam ne jëfi jaam bi lennam raxu ci noonu nga xam ne jeexit jooju nga xam ne day fàttali wan day teewal ci euh, xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñ borom di bind ndax li mu dal di ñëw directement noonu mu ko soppee naka noonu itam ci affaire nisaa de maanaam affaire femme suñu borom daf ci bind mbindeef bind ci roo muy itam kéemaan koo xam ne day wane tawxiid koo xam ne aarifoona billaahi yi rek ñoo koy xam gannaaw yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ñaar yooyu di ko ñetteel mu ne wa ju'ilat qurratu ayni fi salaati waaye lii sama bànneex dëgg li ma sopp dëgg li ma gënal dëgg ci lépp mooy julli nga xam ne kon noonu muy teewloo màggug suñu borom ak xereñam ak bindam ci ñaar yooyu passé yëpp ak ci sellal ak rafetal bind tànn la ci gën féetale ko fam ko bëgg a féetale ngir la tax ci julli la rawee ndax julli ni muy boolee euh, nit ki ak boroomam amul benn jaamu yàlla bu koy boolee boroomam boo tax sallallahu alayhi wa ne nit ki waxtu mu gën a jege boroomam ci bind mooy waxtu mu këppee jëm di sujjóot kon julli noonu la demee bu fekkee ne jullee ngi màggee noonu nu seet li nu waxoon ne jëf béréb ak jamono dana ko jox valeur dana ko yokk valeur ko xam ne bu doon ci beneen jamono ak beneen béréb du àgg foofu misaaloon naa ko sallallahu taala alayhi ci xare badar bi nga xamee ne ñett ci na maanaam yëfar yi ñett ci nañ jullit ñi yonent bi alayhi salaatu demee ca mbaar mi ko sàkkaloon nekk fa di ñaan suñu borom Abubakar rek nekk fa Saad ibn Muaaz yor jaasim taxaw ci bunt bi di wër ngir bañ yéefar yi bett ko julli la fa doon def waxtu su jootee ñaan suñu borom rek lay def alina bi Abi Talib radiyallahu taala nee na ay yoon day bàyyi ko ca xare ba ñëw di seet yonent bi sallallahu ndax yéefar yi sa tax luñu ba agsi ci moom bu ñëwee fekk mu nekk ci sujjóot di ñaan waaye yaa yàq yaa qayum yaa xayu yaa qayum yaa tax na ñu ne yaa xayu yaa qayum tuuru suñu borom mu doy kéemaan la mu gaaw ci wuyu am na sax ñu dem banaan ndax xaddis yi nga xam ne ndax na ne al ismul azim al azam ci ñetti saar yi saar ñetti saar yi bu ci nekk ak xayyu xayyum ma nga ca noonu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom xamal na ko wa izda'idukum allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum xamoon na ne suñu borom benn dana ko may bu xaree dana gañ a xare boobu wala bu xarewul lu dul dajeeg njëgg ma maanaam caravane bi nga xam ne moo jógee euh, Syrie jëm Makka te alal yu bari ya nekk ca te ñoom seen alal yi ñu leen tox toxaloon ba génne leen Makka ñu wacc ko fa yépp nekk fa mu di seen i àq ñu di ko dogale ci suñu borom xamal na ko woon ne benn ngeen dajeeg caravane bi moom la ca nekk wala bu ngeen xare da ngeen gañ ci xare bi daje wuñu caravane ba armée bi la ñu war a xeex ñoom suñ borom xamal digg na ko ne ko ba tey euh, dangeen gañ xare bi waaye nag suñu borom dafa demee noo xam ne sañ-sañam ak man-manam ak xereñam ak nameelam jaam mënu koo xam xam na ne waxam du dañ mukk waaye na gën a xamee yàlla rek gën a wóolu gën a ragal ngir bàyyil ko xàqam ngir teg ko fa nga ko war a teg noonu itam bu seetee circonstance yu doy waar yooyu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax suñ borom ko kuréel bii di saxaaba yi di xare ci badar waxtu wu ñu alkoo maanaam waxtu wu leen yéefar yi jekkoo ba rey leen kenn dootu la jaamu yow suñu borom ci kaw suuf si mu di kon situation bu doy diggante bu doy waar bu rëj bu raglu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ci royam yonent bi ak niru ko ak bari lu mu ko doon ci bi muy julli ñaari rakka ñooñu itam nekk ci situation bu dangereux ni nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam li ko itteeloon du jëmmam waaye diine ndax bu kuréel boobu alkoo kenn dootu jaamu yàlla te jaamu yàlla googu moo ko itteel Sëriñ Tuubaa bi nga xamee ne moom it mu ngi wax ne wajaal masiriya da jawfal fara lil wara misal maxaarini ñaan na suñu boroom ngir tukkeem boobu di faju aajo mbindeef yëpp kenn ku ci nekk ca la cay sa aajo la xam ne moom nga yelloo ci lu mu faju mu xam ne ne ni ko sëñ Moussa Ka waxe ci sa Sakur mu ne budul ko nag dem bi wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu nga xam ne moom mu ngi taxaw taxawaay bu demee noonu taxawaayu xett li mbindee fii ba duñu nasraanu duñu dem safara ngir dox boobu nga xam ne mu ngi koy bëgg a dox te bu ko doxee ba ñëw aajo ñëpp faju lislaam ji taxaw mu niroog lool kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam situation ba mu tolloon ba muy julli di ñaan di wax suñu boroom yaa xayu yaa qiyum yaa xayu yaa qiyum ak di teewlu ne ci ragalam yàlla ak wóoloo di koom ngir bëgg lislaam ak xam kattanu yéefar yi ak ni ñu bare bu kuréel bi alkoo keneen dootu la jaamu sëriñ Tuuba di julli moom it ñaari rakka yooyu di ñaan suñu boroom yoon wi nga xam ne lim ko jubloo mooy xet li mbindeef fii yoon wi lëm ci wuti mu am ko dellu si ak jàmm muy njëriñal bindeef yëpp nga gis ne kon ñaari rakka yooyu defe nañ ko ci circonstance maanaam ci diggante yu doy waar comme ni yonante bi ni nga xamee ne yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci yawmu badrin ba mu nekkee ca arish ba mu ngi julli ñaari rakka ay rakka ci jamono yu doy waar moom it ngir xeetali bindeef yi kiit mu ngi julli ngir xeetali bindeef yi كي هو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم غير لو اج بي خن مو اج بي دي فيب فاجو كي تام غير دمم بي بدك دي فاجو اج بي فيب مون يكون بكون سرمدا وجعل مسير ذا جوف الفرا للورى مثل المحارين بودي في سنتوبا مو دي بيانت مو دي عليك سن بروم ndax li mu nekk ci li muy ñaan li gën a rëy mooy li gën ci dundam te mooy dem ci géej gi dellu la amee lépp li mu aaj faje faje aajo mbindee fii mu amee ngërëmal yàlla li ko jagleele muy xaadimu rasul mu di ko sakku ci jamono yi nga xam ne ci la gën a jege boroomam comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe muy waxtu muy sujjoot muy sujjoot kon li muy sujjoot sujjoot sujjootu lurul ngir ngir ngeen moom yëkkati na léppam maanaam kulliyatahu ni mu ko waxee tabaraka wa taala lahu taala ñeex suñu jox suñu borom léppam yëpp ci karaw yaramam lépp lu mu yilif lépp lu mu ko delloowaat suñu borom wa taala ngir sant ko ak ngir xër ci moom ngir bëgg ko ba gisatul dara bëggatul dara ci kanam yàlla loolu fàttali kon day waar goo xam ne diggante yooyu nit ñu rëy toll nañ fa fàttaliku mbindeef yi xalaat yi seen bopp lu xalaat mbindeef yi kon ñoom ñaan ñëpp moom sallallahu taala wa sallam ñi gën ci mbindeef alayhi salaatu wasalaam ak xaadimam dunduk lislaam itteel leen itteel gu àgg foofu itteel gu àgg foofu jamono yu gën a raj gën a tiis ñuy xalaat mbindeef yi ngir yéemale bu mat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne innama ana rahmatun muhdaatun man duma len lu yërmande ji suñu borom yëkkati indi ko mu def yëpp ñun ñëpp lay seen mu def lay seen ngërëm euh, yërmande kon ñun ñëpp lay seen yërmande ak li dul nit luy baaxi luy malaayika lépp ndax yërmande ak njëriñam ku nekk jëriñam te bu fekkonte ne bu woon xatu jamono bi ñu euh, kon waaw ñi nga xam ne màggal euh, julli googu ci bërëb boobu ko defee woon euh, def lu am solo na seen gannaaw tawxiid bi nga xam ne moom la làmboo xam ji mu xam boroomam jàpp ji muy jàpp ixtiyaapaat yi xam ne ndigal la ak xam yàlla la xamal nañ ko ne bi ngay dem demuloo lu dul ngir liggéeyal yonent bi salaam kon da génn si mu àggee ndar la way asiiru boobu nee ñu woo sëñ Alaaji Aman Njaay maa bee wan ko xasiida gi ak lim ci wax ne ko yow laay def seede danaa dem am li may wut dellu si fekkaat la ci ndar moo ci tax mu xam mu wóor ko ne day dem dellu si day am li mu doon wuti te kon aajo bi dafa faj ci suñu borom di ko dégg ndax lépp luñ la may suñu borom ay sew sew nekk na ci mbiram ak jëfam yoo xam ne mën na am leneen lu ca des loo xam ne bu ñëwul am lu mu manqué barik ñaan gi ak saxoo ñaan gi xam yàlla rek la ngir bu ñëwee mat sëkk la mu doon barkeel sew sew yëpp ñu remplir ko ba dara du des loolu tax mu naan bu bashir kulliyatahu nabihi suñu borom na nga bëggal léppi yonent bi ci man ñu ko waxee rek ne ak dundam mbëggum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem nag mu ngi dem ànd ak roox yi mu ngi dem ànd ak roox yi ànd ak xoli ulama wala amiloon yi ak wàllu yi ak ruuxi saxaaba yi ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam allarwaaxu junudun mujannada xadis la ruux yi ay ay kuréel lañu yoo xam ne dañ leen a séddale def leen ay kuréel junudun mujannada maa taarif minhaa lépp mu ci xamante xeetoon xeetonteeg moroomam day ànd bu bii jógee mu jóg ndax wilaaya sax ci boppam dañ ne dafa mel ne jëmm rek kenn ku ci nekk ci ak cër nga ca wilaaya gi bu matee nag jëmm jëpp lay làmb mooy xaw bu ko defee gépp may ak gépp yoon ak bépp tur yàlla ak bépp xam-xam ak gépp bëgg yàlla ak gépp mat bu ne ci kenn ci wàll yi danga boole lépp noonu nga xam ne askanoonte gi wuyu askanoonte tax na benn jóge ci mat yi mat yeneen yi ci des ànd di ko gunge yenn yi topp ko علم المناسبه بني واخ بسين نون خامن الامام محي الدين العربي واخنا إيه، ني نتل نيو جيلي سي ابو حامد رضي الله تعالى عنه الامام الغزالي واخنا دا فا جيس بن فتح اك بن باخاي ني دي جونجو امو سي كوي سوري مرامم mu daal ne ñaar ñii de askanoon te nekk na seen diggante maanaam am na rapport am na lu leen boole lu ñu niroo daal wala lu ñu bokkale daal di yëkkati loxoom ñoom ñaar ñu dox kenn ku ci nekk di soox ñu xam ne kon soox googe moo leen boole naka noonu mu munaasab bu ñu ko waxee li Muhyiddin wax ne Xasaali ci sangi ak kilifa yi ñu xam ilmu munaasaba ci la bokk dafa am détails yu bari ak xóotaay boo xam ne duñ ca mën a dugg ndax béréb bi laaju ko ci nam gën a gàtte te dana mën a leer moo di xol waxtu woo xamee ne set na wecc ba sell boroom dootu màndi ci alquran dootu màndi itam ci julli dootu xëq mu mukk ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg googu mu koy bëgg bu bëgg gi te daf koy xëcc moom di ko taf ci moom ruuxam ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ni mu waxee ne bi muy dem wax na ko ci asiru googu te booba demagul mi ngi ndar wax na ne bi muy dem mu ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi naka noonu nga xam ne waxtu woo xamee ne euh, xol sell na ba set waxtu nit ki xam boroomam day xër ci ñaan loo tax ñi takkoo di ñaan di ñaan di ñaan rek fuñ toll takkoo ca te duñ bàyyi mukk loolu moo ko waral bi nga xamee ne moom mi ngi daataan bi mu daataan génn këram yonente bi salaatu ne ko ba xamal ko ne bul ragal benn lor loolu xam ne ne amu ci sikki sàkk xam ne ne loolu am la dara waaye nag xam yàlla gi mu xam yàlla ak ñaan yàlla di toroxlu ci kanamam ni mu neexee ci moom yooyu yëpp tax na mu toll di sàkku itam yeneen ni ak ñaan ak leneen mu dolli ko ca rek ndax saan wuy dal bu dee benn bu ñaar dikkee ñett dikk mu gën a dal day gën a dal naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon meloom gannaaw ba nga xamee ne suñu borom dël na ko ni ma ko waxe woon léegi kenn ci kuréel yooyu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne ak tawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati ومن ضعف عن حالي لا يضعف عن سنتي فابسو مبير وير كو يالا باي يالا سما بوب موي سما ملو بما يالا بنده مون مكو باني ديف واي سبب لو موي سما سنة موي يوني ما خوتي جار سي بو فكنتني با ديغا با سما ملو وو مانام وكيلو وير سمبير ييب سي يالا منو لوكو يت بول ساغان موك بول دويا موك با منو لو top sama sunna moy sabab lu moy jaar jaar yi sëñ tuba jaar jaar jaar yi yaron bi sallallahu alaihi wasallam jaar yépp kon ñu julee ñaar rakka yi ba noppi fas la laxas nak dem ci liggéeyal yaron bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy royu kay bu mag ba royu kay bu for ba nga xamne lu wuté ak mom rek suñ borom bugu ci dara lepp lo xamne roy nañ ko ci jëf ànd ak sunnam xam ne suñu borom dina moom la bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak roy gi mu koy roy fonk gi mu koy fonk ko fab léppam jox ko léppam bu mu demee ba jub suñu borom suñu borom xamal ko nag yoon yi mu war a jaar te mooy yoon gën a sopp moo di jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadin bi samad ba mu jógee tàmbalee jaar yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy ba ci rakka yooyu ba ci dem bi ak li mu wax bi mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadun bi samadi dafa waxoon ne dallani allahu ala xayril wara wa qaadani xayril wara ligil wara suñ borom daf ma tegtal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gën ci nit ñëpp kooku jàpp sama loxo ko mat naa sama ànd ci yàlla nit ki demuk boppam ci yàlla li ko gën a wóor mooy yonent bi sallallahu alayhi jàpp loxoom moom mi nga xam ne du juum du fàtte ma nga ci kër dëgg ga li ñu nëbboon ci moom bi nekkee ci àdduna lépp ñu feeñal ko jox ko garaat yi mu ràngoo ak darajaam ak xam-xam ma matam ak ni ko suñu borom soppe ak ni ñu ko bëggee ni ñu ko rusee mu wàmmat ba àggale ci borom wóolu nga loolu moo tax mu dikkee liggéeyam ba jóge daaram jóge Mauritanie liggéeyam mat liñ ko fi santoon mu waroon ko fi jëf lépp mat sëpp dara desu ca bi mu woyee jaawat nga xam ne mooy xaatimatul maqaas maanaam moom mooy bi mujj bi mu mënatu koo weesu mënatu koo weesu mu ne dal na ni allahu alallaahi bila taxarrurin wa umuri taqabbala suñ borom moo ma tegtal suñ borom moo ma tegtal boppam ci lu dul waru nag du ma ci juum am lenn loo xam ne def naa ko ci njuumte wala ci fàtte wala ci jàgg bilaa taxarut wa umri te suma dund gépp suñu borom nangu na ko mu di jaamu ni ma joxe suñu borom sama lépp nangu na sama lépp kon bu muy dem te ànd ak xoli way texe ñëpp ak ruuxi aarifoona billaahi mu ne masiri ma al axyaari lillahi bi nabi wa maa lii li xayri laahi aw masir tànnee fi te mooy saxaaba yi gannaaw yonent yi ñoo gën ci mbindeef yi ñoom laa àndaloon ak yonent bi sallallahu taala wa sallam ànd gi muy ànd ak malaayika muy ànd ak yonent ku xamul tuuti xamuloo mbiru bu xaw loolu mën nga ko bañ a nangu waaye ba tey لمخن وسعة الميدان لا يخفيها إباء نملة سلوكا فيها لف ميات من خمنا كلا فسي دو بمن لم تعني بنيان من بشي جارب جزاكم الله خير جزائه نونو ni am gis dañ koy gis ni Moussa ka di waxee ci jasaaw sako nee na keroog ngelaw bu lam doon ràmbal jibril la yor gogam ba moom la àndal sidna jibril ñii wax ne du dellu si gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñun ñu xamul bu ñu yoree taalif yi limaam nga xam ne lu mën waaye bu na dikk ne man gis naa jinne ñii duñ ko koy gëm ki ko gëm mooy xam ki ko xam dëgg te xam ne ni ci dëgg la te doofuñ ko mun wax xam na ko ki nga xam ne it mas la gis jinne dana ko xam ki nga xam ne it jinne am na fii mënu la ñàkk jinne xam ki xam ne nag nanguwul amul jinne du ko xam ki nangu amul jinne te gëmul ne nit mën na koo gis ñëw di ko du ko gëm kon nag ba tey loolu gis naa malaayika gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko xamul bëgg a wedd suñu ñëpp a waaye nag bu tey ki ko gis moom ak ko gëm ñoom duñ am sikki ci loolu bu fekkente ne nag euh, loolu waxoon ci ñaari rakkaay yi mu amee solo ñi nga xam ne dañ koy màggal ñi ngi def lu rëy ndax dëgg-dëgg bokk ci jëf yi gën ci jëf yi ndax sëñ bi ni mu waxee gannaaw julli bu fekkente ne julli mel bi mu doon wala yeneen jëf ji mu doon itam meloo daf caa am solo ndax moom wax na li gën ci xam-xam wax na li gën ci jëf wax na li yées ci moy wax na li gën ci sikkar tur yàlla kon matal na lépp nee na xam-xam yi li ci gën mooy tawxid gannaaw tawxid tafsiru quran ka xadis yoo ci gën gannaaw yooyu yëpp nag li lay tax a xam dëgg-dëgg diine xam diine en général mm, waxul rek fiq rek waaye tawxid fiq tasawuf mooy tax xam dëgg-dëgg diine xam diine nag boo ko defee lépp dugg na ci biir gannaaw loolu nag yi la jumtuwaay yi la koy tax a xam li gën ci jëf mooy jëf joo xam ne dafa bari ay njëriñ di jëriñ nit ñi ni ki xam-xam di jàngale di yeete ak jëf joo xam ne day sel setal xol te mooy jëf ji nga xam ne da nga koo taqoo naka noonu itam jëf ji nga xam ne tiis na ci sa xol nga jëf ko rek ngir yàlla ak li muy naqari sa xol lépp bokk na ci ëpp tuyaaba loolu ni mu ko misaale waaye li gën li yées ci mooy mooy mooy gu lay fàttaloo yàlla ak mooy guy wowal xol li gën ci sikkar tur yàlla mooy alquran alquran nag jàng ko eh, eh, traduire nañu lu bari ci mm, Ihya Ulumuddin ci li ci aju ci alquran eh, mën nañ koo am teggin yi ak lii tax na la alxuraan di jëriñe am ni ko ak ni sëñ Tuubaa fonkoon alxuraan ni may waxee ne ca tàmbali ba ne dafa doon dundal valeur yi nga xam ne ñu sàggane woon nañ ko yëpp ñu mu def doomu aadama bi daal ak mën a nekk na ko yàlla rek itteel te it nag bu mu jàppee diineem lu woyof jiital addunaam na ko jéem a xam na jéem a xam li koy jëriñ jéem a xam li koy wàññi fu mu toll it nay jéem a dolliku nay seet ñi muy àndal nay seet ñi muy waxal nay seet fi muy dem te nay ku ëllëg ndax fàtte kat boo ko defee rek loola fàtte la te ëllëg loo moo ëpp doole tey ku yàlla fàtte ëllëg nag te yàlla moom du fàtte waaye di jëflanteeg yow jëf yi kuy fàtte bu ëllëgee da nga jaaxle adduna yi day naxe adduna géej la day labal nit ñi war nañu delloo seen xel te boole seen bopp ne jullit ñi dañuy settantal xel yàlla bi mu ko joxee nit dafa bëgg mu di ko jëriñoo alxuraan inna fi zalika la ayat li wax li qawmin yaqiluuna li qawmin yatafakkaruuna li qawmin yuminuuna ak kon borom xel yi lay waxal xel am na solo du lépp nag ndax am na fu mu yem foo xam ne wax yu rek moo ko mottali place wax yu la bu nu jaawale bu nu fab xel teg ko place wax yu bu nu fab wax yu teg ko place xel kon wax yu bari bu nu ko dee attee suñu xel daanu mooy diine ndax yeesal sayduna abubakar dafa ne fa inna diinana mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli diine mu ngi sësu ci toxal yonent diw nee na diw nee na yonent bi nee na waaye du loo xam ne la moo jub ci sa xel rek nga jàpp ne mooy diine du noonu loolu day tax a juum diine bokkul ak xelum kese bu doon xel rek kon yàlla du yónni yonent kon ñun ñëpp ku nekk doyloo sa xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu laaj bi ñetti laaj ji eh, laa ngeen ma ko fekk mm, yàlla dogal ma nekk ci xat-xat ah ba noppi mbir yu bari nekk ci sama xel séddoo séddoo sama xel taasi ko ak yàkkamti gi bu fekkoon ne xëy yeneen jamono ji yeneen jamono la mën naa cee wax tuuti lu wuuteeg lii wala ma waxee neneen waaye nag eh, yàlla na yàlla may dund ak fan wu gudd ak wér-gu-yaram ba li bëgg a def yëpp ñu def ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu